aar sa bopp aar ñi la jege agaroo gan faju digle yi nan ko jëfe aar sa bopp aar ñi la jege agaroo gan faju digle yi nan ko jëfe lëmbe na aatu na le gagoo yaatu na waaw parce que dañu gis ne euh, suñu maire wax dëgg yàlla jàmbaar la si feebar bi nga xamante ne moo xew si àdduna bi wax dëgg yàlla bi ñu defaree 1000 euh, max indil ko ko dañu gis ne loolu doyul ñu ñëw mu ekkatiwaat benn somme bu toll si 3 millions jox ñu ko pour ñu dem defal ko 20 000 max te incha allah rabbi fan yu néew nañ bi ne nga war a jóg taxaw pour defar parce na loo xamante ne bu jeexul day tëj buntu yëpp. tey association bi nga xamante ne mooy mooy tëyri Bambilor ñu jóg liggéey liggéey bi nga xamante ne wax dëgg yàlla si une ko jox mais Pastef bi nga xamante ne moom lañ ci def wax dëgg yàlla euh, dañu xam feebar fi mu toll. ku ne xam na ne feebar fi mu toll instant yii nii xaaratul waaw xaarul kenn moo waral ñu am pas-pas pour defar lii pareeguñu parce que ñun chaque jour ñu ngi si chaque jour ñu ngi si donte lii dañ ko defar indi ko maire mais wax dëgg yàlla ñun ñi toog fii ñëpp kenn ku nekk yaa ngi defar ay centaine di ko jox askan bi. bëri nañu plus de trentaine rek yàlla ay trentaine mais tey lii moo ñëw parce que tamit wax dëgg yàlla ku ne xam ne ne feebar fi toll laajul dajaloo yi laajul yenn yi moo taxoon tey ñu ne dañuy tànn quelques personnes si nga xam ñooy cadres yi indi leen tey. ku ne yaakaar ne euh, feebar koy joxe ku xam na ko. yaakaar naa wax nañ ko ñëpp ñu xam ko tey boo gisee maire barki démb Diop tëj marché marché Bambilor tëj marché commune bi yëpp lii la doon lii la doon bañ parce que yaakaar tey jii boo xasee ba dugg suñu suñu commune dina day law te ñaanuñu yàlla loolu kon nag ku nekk na nga toog sa kër waaw toog sa kër ba pare di sàmmante ak euh, li nga xamante ne moom la ñuy joxe yaa ngi dégg takk masque yaa ngi dégg laal zel raxas ak saabu ku ne xam na ko di distance yi loolu dafa am importance. waaw d'abord damay sant yàlla. di julli ci yonent bi e, di rafetlu jëf ji nga xam ne suñuy jarbaat suñuy doom suñuy rakk ñu am yéene ji dañu jëkkoon ñëw jox ñu junniy masque may ma ko e, ci moment boo xam ne soxla woon naa ko e, mbir mi nag am fu ma àgg ma commandal leen vingt mille masques tey ñu indil ma quinze mille masques vraiment muy satisfaction totale bu ma am ci ñoom ma gërëm leen ci sant leen ndax dafa di combat boo xam ne du combat wu Ndiagne rek du komba wu meeru Bambilor rek mais combat wu kenn ku nekk ku yeewu la képp ku yor ruu yor bakkan combat bi da ci bokk kenn ku ci ne war a am taxawaay bu mu ci war a taxaw euh, bu ñu dee tailleur nag yàlla def seen xalaat mooy ñu bokk ak man komba bi li may def mooy gërëm leen sant leen ci lii ndax defar nañ ko ba ñëw te amul dërëm bu ma teg seen loxo kon lu ñu ne moom laa leen jox rek sama xol moo àgg foofu ci mbégte mi ma am ci ñoom ba tax ma jël loolu teg ko si seen loxo di ñaan yeneen tailleur yi ñu mel ni ñi fa ñu ne euh, ñun pare nañu suñu objectif mooy kuy yeewu commune Bambilor mën man am ñetti max yoo xam ne di ko mën utiliser fu tilimee nga fóot désinfecté euh, ndax bu ñu soñoon mbir mi du dugg commune Bambilor mais nag moomuñu yàlla yàlla dugal na ko fi mais nañ ñaan yàlla yàlla emale ko fi mais yàlla emale ko fi it mooy nañu xeex mooy toog suñuy kër bu ñu demee ba mënuñu toog ñuy joxante distance bu ñuy génn kenn ku ci ne na jël masque takk euh, lu nuyoo bi ñu wàññi ko wala bàyyi ko nañu bàyyi nuyoo bi nañuy takk masque yi toogaay bi ci biir kër yi lu am solo la fu mbooloo de daje ñu di ko daw lépp luy booleen mbooloo ñu daw ko yaakaar naa bu nu ci duggee yàlla mën nañ ci jàppale ci mbaaxam ci mbaaxu weeru koor wi yàlla suturaal ñu ba mbir mi fi mu jot a yem muy yem fa loolu mooy suñu yéene mooy suñu bëgg-bëgg di gërëm bu baax euh, le président de la zone euh, ak ñi mu ko séqal waa on euh, CQRP bu Adocav bu ñu paree demain étudiants yi dinañ ñëw bu ñu ñëwee dañu bëgg tas ko ci dëkk bi kër gu ne dëkk bu ci ne ñu jël fa yóbbu jox nit ñi nit ñi man koy mais defaru ñuy masque rek pour denc defu ñuy masque pour def ci poos wala defu ñuy masque pour nga wékkoo ko wàcce ko dañ ko def pour nit ñi takk ko nañu takk masque yi ndax feebar bi fi ngay wax ak fi ngay wax sa kanam ak nit ki bu ngeen takkul masque ku ko ci yor mën na ko wàll moromam mais bu ñu takkee masque yàlla mën nañu suturaal yàlla nañu yàlla suturaal ba mbir mi am fii waaw ginaaw biñ ci sante yàlla cay ñaan suñ borom mu jeexal mbas mi e, cant gi moom dañ koy dañ ciy jiital ki nga xam ne su ni moom lañ jiital ci njaboot gi nekk ci commune bi muy maire bi muy Ndiagne Diop moom la jiital ci cant gi ndax su fekkee ne e, def na lim mu war a def ba am lanteeg ay ay nitam muy population bi jàmm ba bi mbas mi xewee ñu mën a xalaat defar junni masque indil ko ko ca bettee ko ko bi ñëwee mu bég ci loolu defar loo leen yeneen i masque ñu indi ko tey loola dañ ciy sant bu baax waaye ñoom itam ñu ngi leen di sant di ko jaare ci ki nga xam ne moo ne ci boobu muy Ibrahima lii ñu def seen bopp lañ ko defal lii ñu def seenu njaboot lañ ko defal ndax seeni mbokk sax danañ ci takk ndax joxuñu ko meer bi rek ngir mu denc ko wala ñu jox ko keneen mu denc ko lii xëy na suba sax boo fi ñëwee doo ko fekkaat lépp mën naa dem ji tool la tax su ko defee nag li ñuy woo ci askan wi mooy ndigal yi nga xam ne joxe nañ ko ñu respecté ko ndax yëf yi du ay caaxaan suñ xoolee ci ginnaaw rek bi maire bi dee tëj eh, marché yi coow li bari na lool waaye dégg naa fi léegi ñu wax ne am na ñaari cas Bambilor kon loolu dafay wane ne kilifa yi amuñu benn intérêt ci di tëj marché yi wala ñuy tëj jàkka yi wala ñuy tëj jumaa yi lu leen ci nekkal dara ndax ñi koy def ay jullit lañ te ñu ci bari seen i seen i wayjur ña nga fay jaaye ñi koy tëjlu sax seenu njaboot ña nga fay jaayee kon loolu suñ koy def li jiitu ci dunduk doomu aadama mooy wér soo wérut mënoo tal dara tey jii boo lépp luñ la jox soo ko lekkee mën naa génnaat kon bala ngaa taal ak lekk da ngay wér ba pare ci wér googu nag waruñu ñu cee forcé ñun ñoo ko war a bëggal suñ bopp force si suñ bopp kon nag faaw ñu dox doxinu nit. aar sa bopp aar ñi la jege agaroo gan faju digle yi nan ko jëfe sa bopp aar ñi la jege agaroo gan faju digle yi nan ko jëfe lembe na aatuna dile gagoo yaatuna